dañuy door suñuy kàddu ci euh, jébbal suñu njaal euh, ci famille bi nga xam ne tiis yi dafa dal seen kaw wala famille yi nga xam ne tiis bi dal na seen kaw ndax euh, lu métti la te accident yi ñu wax ko fan yi ëlëm na xel yi yokk na lool ah, ñu ñëwoon fii nag ci Touba sàkku ñaan ci sëriñ bi ndax ci barkeem yàlla mën na def mën na ko ruusee ka bu ñaanee mu nangul ko ko accident yi wàññeeku waaye fekk tamit ñun jël nañu matuwaay yi ñu war a jël yan na yàlla bay sa tool et te loolu ci wàllum matuwaay yi yaakaar naa ne e, liñ ci war a def yëpp équipe yi sama ginnaaw ñu ngi koy def moo xam ci wàllum defaraat yoon yi fii ci Touba rek am na fukki yoon ak juróom-benn yi ñu waroon a defar fukki ak ñetti yemb na yeneen ñett balaa talaate dina pare waaye tamit e, jël mesures yi nga xam ne ci autoroute Ila Touba bi. dinañ ko ci jël ba nga xam ne nit ñi ku ci bëggul daw ndànk sax dinañ la forcer nga daw ndànk waaye euh, lépp loo xam ne jëm na ci wàllum surveiller ci comportement wu chauffeur yi ak su ma nee nag ñëpp ñuy ñëw la moo xam transport moo xam ñi yor seen particulier moo xam war gaynde yi ma leen di lancer appel ñu bàyyi course bi ci tali na ñu bàyyi concours vide compteur ay bakkan lañ yàpp dinañ ci continuer di campagne dinañ ci continuer di sensibiliser ministre de l'intérieur ak euh, ministre des forces armées pour ñu jël ci ay matuwaay ndax excès de vitesse bi ëpp na oto yi ñuy ñu ñuulal ko teel te vitre yëpp jaaduwul loolu yëpp nag dama leen di woo ñu teel cee wut ay solution parce que ñun état duñu seetaan muy continuer a surveillance yi moom yaakaar naa ne am nay test yu ngeen ci ci commencé waaye ci màggal gi tamit dina am yu ñu déployé ci autoroute yi ak ay radar mobile ak yu ni mel pour en tout cas teg yoon ci ñi nga xamante ne nii dañuy bañ a respecter code de la route ak ak vitesse yi nga xam ne moom la ñu autorisé. ci wàllum contrôle routier bi discipliner nit ñi ba nga xamante ne nii dañu respecter code de la route waaye diversifier tamit moyen de transport yi mooy par exemple euh, raay yi nga xam ne bëgg nañ ko dekkilaat ci Sénégal. te ngeen gis ne màggal gi sax dina am ay train yoo xam ne incha allah dina ñëw Touba loolu yëpp bu ñu ko boolee am naa yaakaar ne dina am saafara boole koom nag ñaanu kilifa yu baax yi parce que loolu tamit mënu see ñàkk samay équipe ñu ngi doon waxtaan ak ñoom te ñoom tamit euh, euh, xam nañu ni nit ñi dañoo ñëw pour euh, sàkku si ñaan pour màggal si ki nga xamante ne nii mooy Serigne Touba kon am naa yaakaar ne raxma bi dina ci feeñ maanaam dinañu am yërmande ci askan wi waaye tamit transport bi li mu laaj euh, faw ñu commencé di ko moderniser faw tamit ñu may askan wi ñu mën a am ay ay transport yu gën a moderne maanaam yu gën a mucc ayib ba tax na Dakar Dem Dikk day bokkaat ci màggal bi yoon sax li ñu indi dina ëpp lu ñu indi woon ci tabaski. ñaata. lu gën ngaa néew ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñetti bis. sans compter yi. saxaar yi tamit dina ci ñëw grand train du Sénégal yoonu jàmm ak yu ni mel loolu day tax rek euh, euh, dem beeg dikk bi gën a yemb waaye ci ay conditions ndax xam nga ne Dakar dem dikk dañuy former seen ay chauffeur dañuy contrôler seen ay oto moo tax daanaka néew na nga dégg ci accident. yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak ngërëm di ko teg ci loxol El Hadj Malick Ndiaye ak mboolem délégation bi mu ànd bépp rawatina directeur général Ageroute ak ki jiite autoroute bi ak ki jiite ki jiite yi kon ni ko Cheikh Mahoud Bassir waxee rek kàddu yi dalal jàmm la doon ak cant ak ngërëm di yóbbante nuyoo ci sa kilifa yi nga xam ne ñoom nga fi teewal di président de la république Bassirou Diomaye Faye di ko ñaanal yan bi nga xam ne suñ borom teg na ko ko te yàlla suñ boom wax ci alxuraan donte ci geneen fànn la sax allahu alamu xaytu yajcalu risalaat yi waaye yan bi mu ko yan ko yan attan ba lam yéene yóbbu ko fa ci lu baax mu àgg fa di lay yóbbanteem nuyoo ci premier ministre Ousmane Sonko ak mboolem gouvernement bi yëpp di leen sant bu baax ndax cant gi it fiñ ko teg rek mooy yéene ji nga xam ne gis nañ ko ci yéen waaye nag yi ngeen fi toogee ba nag ni daal yitte ju kawe ak cofeel gu rëy ak ak fonkeel gu dara desul lay gis seen ci yéen loolu na kon faaw ñu seere ko yow itam ñu lay ñu lay ci beera sa cantu bopp ndax nag daaw rek am na ñoo xam ne ci jotaay xam ne fekk nañ ko ba mu fi jugee rek laa leen di wax ne El Malick ni ma ko gisee xam naa ne ko am ci man ak cofeel la gisee laa xam ci moom loolu nag ba la gën noonu laa ko gisee ci yow. gis sag mën a rafetal keroog bi fi président bi njëkkee ñëw gis ma gis sa taxawaay ndax ràññee diwuma loolu itam ak sa yeneen xarit yu bëri yoo xam ne jëkk na sax toog ci jotaay bi waaye ma xam sa yéene ci réew mi ak sa rafetal ak sa bëgg jàmm ak bëgg xol yëpp ànd loolu la dara ëpp ko wal qalami wa ma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 ربك بمجنون